nekk nii euh, l'énigme l'équation c'est la présence ou non de Ousmane Sonko euh, boo nekkoon nitam wala à sa place qu'est-ce que tu lui aurais conseillé de faire de bouder le procès continuer résistance am wala de venir faire face à la justice loolu moom xam nga responsabilité kenn ku ci nekk la te <clears throat> boo nekkul situation euh, li gën a yomb mooy nga ne su ma ci nekkoon nii lay doxale donc euh, côté boobu moom dañ koy bàyyi ak euh, ses conseillers ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy xelal ak euh, seen conscience ñoom ñu ñu def li nga xamante ni moom moo dal seen xel donc je pense que ne loolu l'entière responsabilité quand même c'est c'est à leur niveau. Mm. mais mais nan nga gisee situation bi yëpp le procès Ousmane Sonko accusé de. de de de viol qui doit inéluctablement euh, faire face à la justice euh, En fait euh, man li ma ci gën a déplorer c'est l'image du Sénégal du pays et la situation du pays xam nga ñun daanaka li ñu gën a naqari ba tax ñu dugg ci politique euh, mooy li ñu doon gis ne espace public bi y un tout politique lépp politique la. te situation yu mel nii malheureusement ci lim ñuy yóbbuwaat aussi mooy gis nga tey euh, avant may génn rek maa ngi gis ne école yu bari Dakar suba du ñu jàng euh, Maymuna dëkk boo xamante ni da ngay dabe ñu raw la ci lu bari ñoo ngi koy fàttali jamono bu ci nekk ne 1960 Sénégal ak Corée du Sud ñoo yemoon euh, ci wàllu koom ci wàllu développement tey jii ñoom raw nañ ñu fukki junni yoon dëkk boobu mënul permettre boppam di xëy. ay xale bañ a jàngi ndax tout simplement ay fait politique am na wala ay situation politico-judiciaire am na c'est inadmissible donc li ci gën a metti man sama réflexion bu ci jiitu mooy image bi nga xamante ni moom la ci Sénégal di di jël image yu Sénégal beneen bi mooy ñi ciy faatu malheureusement ñoo xamante ni dañ ciy dee te euh, ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di waxee ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi mu ne jiite àdduna ak li ci biiram jarul kenn nit di dee te nguur ak wut nguur jarul benn nit di faatu ndax nit dafa rëy léegi xoolal léegi ni ñu demee si la banalisation de la mort alors que la dignité humaine elle est sacrée réew bu naree dem fu sori li ñu koy njëkk a natte mooy fan la toll ci dignité doomu aadama waxuma la sax dignité doomu aadama nit waaye bokk na ci ñiy natte dëkk buy avancé sax mooy mala yi nan lañ leen sàmmee ci dëkk boobu nga dep nga nga glissé dem ci environnement bi nan lañ ko sàmmee muy arbre yeeg garab yeeg euh, la forêt beeg yooyu yëpp nan lañ ko sàmmee donc li ma bëgg a wax par rapport à cette situation mooy li mu jural Sénégal loolu moom moo gën a métti loolu lot de mort les les dégâts collatéraux nit ñi war a jàngi du ñu jàngi économie bi ni nga xamante noonu lay taxawee ñu ne par exemple suba benn banque du tijji wala banque yenn commerce yu bëri du ñu tijji surtout ñun suñu dëkk nga xamante ni le secteur informel il est important am ci ñoo xamante ni bu ñu xëyul. du ñu am lu ñu def ci seen biir te ñooñu situation bu mel ni day tax du ñu xëy loolu nag jàpp naa ne c'est c'est malheureux c'est une situation boo xamante ni Sénégal war na ko dépasser et dire plus jamais ça te loolu je pense que. plus jamais ça ci chaîne de responsabilité euh, bi. plus jamais ça euh, kan ngay adresser le le le le message. non. toutes les responsabilités doivent être situées c'est-à-dire que l'importance d'un procès loolu la c'est-à-dire que mooy bu ñu ci demee xam nga tey jii Sénégal dañoo jàpp ne procès pour euh, pour pour pour kii warul warul procès warul jëriñ loolu procès li mu war a jëriñ boo gisee dëkk yu bari tax ñu def évolution ba di euh, di am ay chaînes de télévision yoo xamante yenn procès yi ñu koy rendre public liñ ci jublu rek mooy la dimension pédagogique ak didactique mooy ban jàngale lañ ciy def par loolu dootul amati loolu moo tax euh, procès yu bari bu ñu amee benn importance ci ci ci société dëgg dañu koy dañuy xamal nit ñi li nga xamante ni moom boo xew procès publique li tax mooy jàngale bi ñu ci war a jàngale su ma nee plus jamais ça mooy nan la ñu def ba situation bi aksi fii ba situation bi agsi fii kan moo ci am responsabilité kan la responsabilité responsabilité établie laa wax kan moo def kan moo deful loolu procès loolu lay jëriñ et c'est là où le, la responsabilité de la justice elle est importante c'est là où le défi énorme de la justice aussi est important mooy relever défi bi mooy que la loi reste et demeure ci benn caractère boo xamante ni général et impersonnel lay nekk et que loolu la ñuy xaar ci niveau de responsabilité bi yëpp kenn ku ci nekk assumer sa responsabilité ba nga xamante ni dinañ xam kan moo def kan moo deful kan moo ci laale kan moo ci laalewul kan la ci loxoom dugg te waru ci woon dugg ak kan la ci loxoom duggul ak surtout ñi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo faatu te ba tey ji dara leeru ci